waaw di wax macha allah rek lañ am ah ñun dañoo juddu fekk suñuy bay, yor fi suñ fi suñu bay fi kër famille bu mag la suñu bay mo fi nekkon di magal ak suñu yaay ak suñuy tàntaag yalla def na nak ñu làqu ñun ah comme tàggat nañ ñu ci loolu ñu daal di jël jël relève man mi ngay gis ni Europe la joggé ñew magal si ma joy ba France magal si waaw at mu jot bu ma ko manee te yàlla dimbali ma sëñ Touba damay ñëw màggal si mënu ma ko manqué ndax loolu rek mooy sama yitte ci waaw ñëw ah avant muy tukki nag dafa ne masoon a nekk sama mëbët ndax bi may doon gone dama gis bàyyi di ci yëngatu maanaam def ko yitte def ci yitte lool macha allah waaw ak mag ñeen ñëpp waaw bi ma demee ba gis ne nag lii ñun ñuy gone war nañoo jël relève bi ah ci la gëna a am motivation ne xaaral nak fi ñu ne takk tubay jot na liggéey relève bi sha allah sama dom ñom ñep ñi gis nga len ak rak ñom ñep ma sha allah ku ci ne yaangi lo am ak lo man bis bi rek nga bayyi muy yité waaw san sëñ Touba lool rek mom la ñom ñep ci lool lañuy taxaw gis nga ak soxla yeeg ñom ñep ci lañ taxaw xana di sante yalla sante yalla bu baaxa baax di julli ci sayidina mohammed sangum sanki di wax jeffe serigne Touba jeffe serigne Touba magal gi neexna yal nañ ko yag def at yu bare bari dem and ak wer ak xewal bàyyi fi sëñ Muntaxa mbake lu yag lol mu jitu ñu top ci ginnaawam nañ ko fi yalla bayil mu wer nu and ko ak mom ah di sant sama wa keur ñi ndax magal gi di sant serigne Touba bu wer ñom itam dañ ci ñaanal seeni wayjur ñi nga xamne ne ñoo leen meññoon dañ leen ci ñaanal at mu jot fuñ tol at mu jot dañ leen ci waccel ay kamir. Kamir yoy yalla na leen ci yalla jotale ak kep ku dib julit ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam barke borom touba ah di sant sama dom yu gor yi nga xamne ne ñi ngi ci kër gi sha allah seen taxaway rafet lol di jambaari serigne touba nak lu def ci serigne touba rek xeb nañu ko di ñaan yalla nak di gëna man rek di gëna man rek tem and ak wér ñu bokku ko ak talibé yi rek yal nañ fi yalla bay ñu yag ko fekke ci barke Seydina sallallahu salaa wasallam barke seigne Touba. di sant rek ndax yag nañ ko dafi atayat waaw yaakaar naa ñun ñu ngi joggé ba xombal wa xombal lañ ay kër gi nak suñu kër la kër ciosan la kër ciosan la kër mbokk la waaw suñu mam dafé dekk ak suñu xarit ak suñu ndijay ba am fi ay soxna ak lepp waaw magal gi nak Euh, sant Serigne Touba rek def nañ koy ati ati ati ati ati at lu mat fanweeri at waaw ndax man fii ba ma fi dalee ñëw ak léegi 91 euh, ba tey ci kër gi laay màggali mosuma changé dal waaw nit ki nag fu mu amee jàmm ak muy amee mbégte 91 bay tey su ma fi amuloon jàmm kon du ma fi ñëw ñoom waa kër gi nag Fall lañ sant man Ndiaye laa sant waaye sax léegi ku romb ci mbedd mi boo ma gisee sax Fall nga may sant la. ndax damaa dem ma nuroog ñoom nekk ak ñoom ay mbokk ay lépp seen ak mbaax a ko waral kon ñi ngi sant ci mag ñi fi jóge woon muy borom kër gi nekkatu fi tey jiitu na ñu ngi leen di sant di leen ñaanal fa ñu tëdd yàlla suuf sedd seen kaw yàlla na àjjana nekk seen kër ndax lépp ñoom ñoo ko waral waaw muy maire Diop waaw ak Pa Masata ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla xare àjjana ndax lépp ñoo ko waral waaw kii si si ginnaaw tamit waaw ba mu fi jógee ba tey moom moo nekk suñu yaay moom it dara ñaawut moo boot ñëpp waaw xoolul kii ak kii ak xoolul kii ak kii xoolul kii jabar la ñëpp mooy seen yaay moom it dara ñaawul moom it ñu ngi koy ñaanal at mu jot lépp luy yitteem da koy bàyyi mu jaral ko mu ñëw ci kër gi waaw kër gi mooy këram fu ko neex mu dal ci Touba nag waaye kër gii la taamu mu fi daal ndax ñun ñooy njabootam kon ñu koy ñaanal moom it di sant di ko sant di ko gërëm yàlla wéral cër yi guddal fan yi lépp lu mu man ren bu déwénee yàlla na yokk yàlla na aajo yëpp faju ñëpp ñi fi ñëw ak fépp fu waay bàyyee ko aajo joo fi mun a indi yàlla na ko yàlla saafara te mu gën ci yow kon daal màggal gi daal ñun sant rek mbégte dong lañ ci mën a wax màggal daal sant la na ko sëñ bi waxee woon ne na ngeen ma sant la yàlla xeebul ci dara li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem lu mu ndaw ndaw xeebu ko lu mu rëy rëyit yéemu ko ñun nag ci tànk yooyu lañ nekk ba tey jii sant rek ba tax na kër gi démb ba tey ñi ngi rey nag yi di bernde yàpp yi doy na boo xëyee jigéen ñi ñi ngi ci waañ wi lépp lu ñu man ñi ngi koy def di togg muy neex di togg muy doy waaw feccum liir nag bu neexee nday jaatee ca mbagg ya seen bàjje na nga nële Faat Mbàkke Fall moom it waañ wi ànd ak ak ji yii ju baax ci ci kër gi tàmbalee ci awa suñu limee dañuy juum waaye awa sëy a ah, damay bañ a lim xanaa ni sant yaayay sant bi sant yaay juy si yonant bi di sant maam jaaye bu so coow yi coow yi mooma maam Jaay mi ne sën Touba sën Touba aw fa mu aw ba dugal ñëpp ci diine sën Touba bi yëgutoon bi yëggeeyutoon kon diine day fay waaye nag Touba ya kaay nag ba mu yëggeeyee Touba ya kaay ba dugal ci diine fa mu dox ak fa mu aw ki fa aw dootu am ki faaw sën Touba fa mu aw kenn doot faaw yii yëpp nañ ko sant sën Touba sën Touba mi topp yoonante bi ba am ba may nu yéen may diine sax. sax ñuy sant yaay sant yonent bi di sant bu baax maa ngi maa ngi nag Touba Kaaya maa ngi man jàmm dong yaa si gis man dama am doom Touba Kaaya nu ngeentu ko bis bi day suur maa di andi ko Touba man Touba yekk yaa gëm ndax sama ndey ak samay baay ak samay maam yëpp Touba yi nu xam ñuy sant yaay sant yonent bi di sant nag sama doom yu goo yii nag ci kër gi di yéen sant nag ñu yokk gëm seeni waaju ndax yi waay man sa waaju tax. seen i waaju yi si ma yaa ma seen waajoo ya tax yëpp bu sa jooba yëpp bu sa jooba bi xiiwa yi yëpp am si kër gi ak fi sax yeeg bu saa moo koy géey dañ maam jaay bu sa kenn mën koo dab waane ne bu sa xaw naa ma dab maam jaaya ndax aw na tànk maam jaaya ñuy sant yaay sant yonent bi di sant san Tuuba màggal gi neex na béy na yi bàyyi na xiiwa yi bàyyi na boo jógee Bamako ba ni ngay dikkee eh, Tuuba béy na yi day féeg foo yëngu béy na yaa ngi foo aw béy ne yaa ngi yëpp ak sant Touba maa ngi sant yaay sant yoon sant Touba sant sama doom yi nag yu man yéen yaay nan mu dawani kopp yu nu man yéen yaay nan ma dawani kopp si day jeeg seef yooyu donc yaa sox sama doom